ji ci lañ war a door nga xam ni am na ci diggante kii de leaderu Pastef bi Ousmane Sonko ak aji saax mu nekk benn dossier politico judiciaire boo xam ni heure bu ñu war a dooralaat procès bi askan wi nekk ci tiitaange ak njaxare léegi procès bi suba la nag moo tax ñëpp a ngi nekk ci njaxare jamono ji au ventre mu mel ni. dossier waral ba ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofee ca rëbës ak li ko wër nekkuñu benn yoon ci sécurité. non du ñu nekk en sécurité moom franchement pas du en sécurité façon oto bu ne façon nit ku ne parce que bii passé ñëw nañ fi defuñu waxuñu gars yi dóor ñu ay lacrymogène sànni suñu biir kër yi lacrymogène suñu yaay dañoo feebar. procès boo xam ni heure bu waree dekki ay manifestation lay àndal ñoom askan wi ñoo ngi organisé wu ngir am kaaraange ci seen koj parce que ñu ngi les habitants di di Rebeuss ñu ñoo jàll suñu sécurité boobu donc du ñu nangu leneen di si am leneen di si rax donc lépp suñu am foofu ñu ñoo koy gérer suñu bopp ginnaaw mesures yi nga xam ni askan wi ñoo ngi koy jël ab procès bi ñàkkul benn yoon ay conséquence ci seeni activité activités. procès bi moom pour le dire day parasiter lu bare bare suñu activité keroog ñu ne borom story bu ñu liggéey bu bëgg bu kenn taw bu ñu jaay kenn essence am na si ñoo xam ne ni dañuy dem hôpital xaar am na ñoo xam ne dañuy dem hôpital yóbbul nit ñi añ seen malaat yi am na ñoo xam ne bëgg nañu ñëw 100 mètres indil seen waa kër seen seen njaboot yi añ. waxtu wi nga xam ne soox ay yëngu-yëngu moo ngi fay am askanu Ziguinchor daal di encercler lii di këru Ousmane Sonko daal di baare ay yoon ay gaz lacrymogène ñu ko fay tiire waaye ay jaamaarloo ci diggante ñii di way takku der yi ak askan wi jamono jooju waa Dakar ñoo ngi nekk ci tiitaange ak njàqare ci boobee procès waaye tamit ñoo ngi jël ay mesures ngir kaaraange